الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ci suñu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko di leen sàkku ngeen yeesal seen ragal yàlla ca ngallaway bu leen dee mukk lu dul yéen a ngi jébbalul seen boroom mbokk suñu boroom yàlla mooy wëlbati bëccëg yi ak guddi yi sunu borom yàlla mooy teral weer yi ak at yi mooy buur bu sell bi nga xam ne moo yeyoo màggaay yi lépp dana mas a jeex moom dong mooy ka nga xam ne mooy aji des bi ñu ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la bu mu yónni woon ci ñun gannaaw loolu mbokk julit lii nga xam ne nii mooy guddi dem bëccëg ñëw weer dem beneen weer ñëw askaru beneen weer topp ca gannaawam sunu borom yàlla subhanahu wa taala defal na ko jaam yi muy ay magasin bëccëg bu nekk am na lu mu sàkku ci yow loo xam ne sàkku wu ko woon ca la ko jiitu weer wu nekk am na lu muy sàkku loolu nga xam ko bu baax yow julit waaye nga law waay yow julitin xamal ne lii nga xam ne mooy bis yi ak weer yi ak at yi ñëw na di la konkeel la la yàlla wërsëganoon sunu borom mu ne innama nauddu lahum adda nga la waay yow jaamu yàlla bi xamal ne bi keroog ba nga nekkee si biiru yaay ba am fa ñeenti weer la yàlla woon woo woon benn malaaka mu bind ci sa téere ne nangami at ngay am ci kaw suuf nangami weer ngay am ci kaw suuf nangami bis ngay am ci kaw suuf loolee da ngay gis ne doomu aadama bi mi ngi nekk di dund ci loolu amul benn bis booy dund lu dul soril na la adduna gi gën laa jegeel àllaaxira ga nga jëm soril na la kër gi nga mënoon a liggéeyee yóbbu la ca kër ga nga xam ne liggéey amu fa fay kese moo fa am ay yéen mbokk julit dimanche bii di ñëw la ñuy séentu weeru tamxarit muy weeru muharram ca gaddaayu yeneen ca ba di atum lislaam kon jeex na suñ diggante loolu ñetti fan moo fi dox lum bari bari du paase ñeent loolu moo tax ba ngalawaay yow julit bàyyil xel ak nii nga doon dund xamal ne ëmb na ay kawtéef ëmb na mbir yu bari xew-xew yu bari am na ci am na ñoo xam ne ci at moomu am nañ ci ay mbégte am na ci ñoo xam ne am nañ ci ay tiis aka bari ay xale yu ci ñàkk seen baay aka bari ay jëkkër yu ci ñàkk seeni seeni borom kër aka bari ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala mayoon na leen ak wér waaye dee bett leen yóbbu leen ci at mi nga xam ne ci lu ñu génn ana ñaata lañ gunge ci ñu ñu jëkkaloon ana ñaata lañ gunge ci ñu ñu xamante loon loolu mbokk da ngay gis ne am at la moo xam ne jàll na ak la te yàlla jàll wa ala dogaloon mën na am yàlla subhanahu wa taala musal na ci ndax lu jeexagul fépp kenn xamul lu muy mujje su ko defee kon ngal la waay yow mi nga xame ni nii yow yaay borom xel xamal ne doomu aadama yi nañuy jeexale am at bokkul ñu bari ci doomu aadama yi dañ koy jeexal ngir intérêt bañ ca mën a am ñu mbir ca lool waa jooju tëjoon ñetti ati kaso heure bu demee ba ñetti at yooyu jeex day kontaan lool xale bi doon def formation am cinq ans la am six ans la am nangam ca at yi mujjee day kontaan lool waaye lépp xamal ne at mu bees lu mu la jox rek jël na ci yow lu ko ëpp te mooy jël na ci yow sa dund jël na ci yow temps boo xam ni du mën a dellu si mukk loolee moo tax ba kiy am xel mooy kiy taxaw di xool démbam di xool lam génn ci weer di xool at mim passé mu man lan laa ci jote def waaye li nga xam ne mi ngi koy dund tey mu góorgóorlu ci ngir mën a gën a waajal ëllëg mbokk julit li nga xamee ne mooy guddeeg bëccëg gi gi ñuy weccante lu ci dem rek yóbbu na leen ni ci ñun comme naka abu darda sahaba yonente ba doon waxe ay yéen doomu aadama yi xam leen ne ay bis rek yu yàlla tegere ngeen ay bis rek yu yàlla juur ngeen tey jii boo jëloon fii la nga xam ne mooy saako pombiteer teg bis boo xëyee jël benn doom sànni bis boo xëyee jël benn doom sànni day mujj saako bu def pëndëng yow it doomu aadama xamal na saako bis na rek bu ñu jóor bis mu jàll rek dem na bis mu jàll dem na day mujj mu jeex takk loolu ñu wane ne yow sa dund jeex na léegi nag bis yooyu ku mel ne xasanul basri moom lu mu daan wax ay yow doomu aadama xamal ne amul bis bu teru lu dul li nga wax ak yow ne la ah man day bis bu bees laa musuma ñëw te dootuma ñëwaat ba ilaa yu nit din góor góor lul def ci man lu baax ndax man kat dootuma gisati bis boobu war a ñëw seede leen mbokk bisub àjjuma bii ñuy dund tey nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski musul am te dootul am bay la yumi diin mi ngi ñëw di seede ana lan lañ nar a def suñu borom yàlla boole ñoog malaaka yoo xam ne bi fajar jotee ñi ngi ñuy enregistré liñ nar a def ba takkusaan mu yéega leen wàcc yeneen malaaka yuy nar a enregistré di wattu li ñuy def ba baa fajar di jotaat loolu kon yow mi nga xam ne yaay borom xel góorgóorlul ci fexe ba profito ci bis yooyu nga xam ne mi ngi liggéey ci yow yowit góor-góor lul liggéey ci ñoom liggéey ci ñoom lu lay jural ngërëmal yàlla te xam ne ay magasin la ñuy lu la yàlla ko bil la ngal la waay moytul mu jàll te fekk ne yow doo doon ku ciy jëriñoo dara bokkoon na ci xutba ali ibn abi talib mu daan xutba di wax ay yéen nit ñi adduna day mi ngi nii di dem alaxira ma nga nee di ñëw adduna saxul day jeex alaxira bii ñëw day sax dàkk am na ay doomi adduna am na ay doomi alaxira ngalla waayu góor góorlu leen ci doon doomi alaxira naka la ñuy doone doomu alaxira mooy lépp looy dem ci kaw suuf nga sàkku ci ngërëmal yàlla lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ca nga sori ko te xam ne loolu doomi adduna yi ñoo ko moom ay yéen doomu jëlit bokk na li nga xam ne mooy borom xel dëgg mooy ki nga xam ne mooy xool boppam di jéem a xisaab boppam di laaj boppam ma man tey su ma dee woon ndax lii ma nekkee gërëmal yàlla mi ngi ci te xam ne amul looy def lu dul mi ngi lay xaar yowm alqiyaama suñu borom nee na mooy bis boo xam ne bépp bakkan dana gis la mu faggu woon ci lu baax faggu lu bon nee na bu keroogee lu bon la buñ la ko wonee da nga ne ee waay ak a neexoon sama diggante jëf ji meloon ne diggante penku ak sow dig bu bari dox sama diggante ak moom loolu nag mbokk julit ba ñu ko yàlla leerale kon commencé depuis fii lépp loo xam ne jàpp nga ne day ay bakkaar la nga soril ko sa bopp ne penkoog sow sorile nga xool sa bopp ci farata yi la yàlla farataal fan nga ci toll baa matal nga ko xoolal sa bopp ci li yàlla xaraamal mbaa yow amul lenn loo xam ne yaa ngi nekk di ko ca def ci xamal ne yow mbokk julit bokk na sunna yàlla ci kaw suuf doomu aadama bi lam sax di ca dund en général ca lay deeyee waa ji sax ci ay caaxaan ak lu bon mu dee ci loolu yomb na lool waaye waa ji sax ci guddeeg bëccëg mi ngi sax ci jaamu yàlla mu dee ci loolu yomb na lool te doomu aadama bi la am solo muy mujjëm ku nekk la nga dee loolu lañ lay dekkale yowmal qiyaama loolu itamit mbokk jurit war a tax ñu góorgóorlu maadaama dee googu xamuñu naka lay demee xamuñu fan lay demee ñuy góorgóorlu di dee ci lu baax day tax la jiitu bu baaxul woon it yàlla dëkk ci lu baax la ba yërëm ñu ay yow mbokk jurit góorgóorlu ñu profito sunu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam day ibnu abbas nee na am na benn ci góor ku ñëwoon mu koy dénk mu dénk ko juróomi mbir ne ko ay yow bu dee am nga xel profité ci juróom yi balaa juróom di la fekk si mooy sa ndaw gi profité ci balaa mag yi di ñëw ay yow ndawal julit xamal ne li nga mën ci jàng xam-xam sa bàyyi mënu ko li nga mën ci taxaw guddi naafila sa bàyyi mënu ko li nga mën a jàng ci ay isib alquran sa bàyyi mënutu ko góorgóorlu profité ci ndaw boobu balaa ak mag yi di ñëw gannaaw bu mu ne ko góorgóorlu profité ci sa ndaw ci ci sa wér ndax xamoo kan la li wér di di dab ak bari mbokk julit doomu aadama boo xam ne ma nga doon wax xëy xëy mënatu la wax mi nga doon dox ay soxlaam xëy xëy mënatu la dox loolee ku nekk ci ñun war a profité ci loolu mu ne ko it bu la yàlla mayee alal góorgóorlu ndax xamoo fu la ak ñàkk di dabe gannaaw ba bu la yàlla mayee ak jot góorgóorlu ndax xamoo fan la la ñàkk jot di dabe gannaaw ba sa dund gii la yàlla may profité ci ndax xamoo fan la la dee di bette loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war na ñaan yàlla musal ko mu bokk ci jaam yi yàlla yi nga xam ne yooyu yëpp bàyyiwuñ ko xel dañoo nekk ca la leen neex di kër këril adduna ba baa dee ñoo bett leen ñu dooga la bu woo yàlla ay yàlla rabbi ji'uun yàlla delloo ma adduna ngiree ma profité def lu baax te la nga xam ne moom laa bàyyi gannaaw suñu borom yàlla ne déedéet loolu kàddu la goo xam ne nii rek moo koy wax waaye da koy xaar muy barzaq di benn prison intermédiaire bi dox diggante àdduna ak alaxira ba bàyyi yàlla di dekkal la nga xam ne mooy ay jaamam ay yéen mbokk julit xam leen ne gudd fan ñi ngi koy ñaanalante suñu biir waaye nag mbokk du ne gudd fan bi ci boppam moo baax la baax mooy lan ngay def te gudd fan googee waaye gudd fan heure boo xamee ni nii sa fan guddi na te yaa ngi ko jeexal ci lu naqari yàlla gudd fan googee musiba lay doon ci yow yokku mbugal lay doon ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loo xam ne Tirmisi solo na ko benn waay ñëw ne na ko ay yémi yàlla yónni jaami yàlla yi moom kan moo ci gën yonent bi ne ko koo xam ne dafa gudd fan te ay jëfam baax kooku de moo gën naam ki nga xam ne yaa ngi def lu baax di jullee ko woor a ko sarxee pendant juróom fukki at ka ka def juróom-ñaar fukki at kay moo la gën ka ka def téeméeri at moo la gën waaye mu ne ko waaw yonent yàlla bi nag kan moo yées ci nit ñi mu ne ko ko yées ci nit ñi mooy koo xam ne fanam dafa gudd ca mu nekkoon ci lu bon looloo tax ki nga xam ne juróom fukki at ma nga nekk ci lu bon ak a bon waaye bokk na ka ka gën a bon mooy koo xam ne juróom-ñaari fukki at la ca def la la ca def wala koo xam ne nii ah juróom-ñetti fukki at la ca def ay yéen mbokk julit nañu góorgóorlu di xool fu ñu bopp fu ñu mën a toll di jëfandikoo lu Omar ibn Xattaab daan ñu digal te mooy day leen régler seen bopp bala leen yàlla subhanahu wa taala di régler di tuub seen i rëcc rëcc balaa ñëw bis boo xam ne ak tuub wees na ngallaawaay mbokk julit xam leen ne. jamono jii ñu toll yàlla may ñu dund jamono yi jëf la de yàlla du ñu ci xisaab benn waaye mën nañ nekk ci lu bon ci mooy yàlla ci bokkaale yàlla di yokk ay xéewalam ndax àdduna du këru xisaab du këru pay benn waaye mën na nekk ci jaamu yàlla guddeeg bëccëg yàlla yokk ay nattoom ndax àdduna du këru xisaab du këru pay këru liggéey rek la waaye ñu ngi dem àllaaxira moom këru pay la bu ko reegee ku nekk doon na bëgg liggéey fekk liggéey ba wees na lépp loo masoon na def ci lu baax nga gis pay ga loo masoon na def ci lu bon nga gis pay ga fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara kon góorgóorlu leen ci occasion dund bii ñu yàlla may ku nekk ci ñun fexe ba bañ a xeeb dara ci lu bon waaye bañ a xeeb dara ci loo xam ne nii ci lu baax la ay yéen mbokk julit ñi ngi nii di séentu at mu bees ñu tudde ko atum gàddaay nga xam ne danañu fàttali te daange ba nga xamee ne nii islam amoon na ko démb ci jamono Omar ibnul Xattaab mooy fekk yonent bi gàddaay na ba mu am fukkaat ak juróom-ñaar ca la sahaaba yi daje ne day war nañoo am calendrier boo xam ne mooy calendrier bu islam ndax seen maam yi ñu nga leen fekkoon ñu daan wax rek amul fil mooy at man dem bëgg a màbb kaaba ga loolu ñu diisoo ci am na ñu ne mais nañ tënku ci calendrier waa Ruum ndax àddina yëpp xam nañ ko wala calendrier waa Faris Omar na leen déedéet yonent bi alayhi salaam dañuy doon tere ñu nuroog yahud ak nasaraan yi ba sahaaba ya xalaatee lañ gis ne amul benn événement bu gën a marqué l'islam lu mel ne keroog ba yàlla santee yonent bi ak sahabaam ñu war a gàddaay jóge Makka dem Madina loolu ñu daal di koy jël atum gàddaay ma moo tax ñu wax ne la sànq ne ñi ngi dund jeexitalu atu junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar te mooy at ba yonent bi gàddaayi ak suñ jamonoy tey loolu kon lu ñuy jàngal mooy heure bu ñuy fàttalikoo datu l'islam boobu nga xam ne malheureusement tey li ëpp ci doomu jullit ñi xamuñu ko jéemuñu ko sax toppatoo la ñu xam mooy janvier que février que ila axiri doonte ne loolu suñu borom nee na ak yéeféer la mooy tënku ci beneen calendrier bu dul calendrier borom bi loolee suñu borom mu ne ziyadatun fil kufr la allahuma doomu aadama bi bu munta ñàkk yemele ko ci li nga xam ne mooy jëflante adduna kese waaye xamal ne suñu mboolu ñu jaamu yàlla ñoo koy tënk te la nga xam ne mooy atum l'islam moom nga xam ne moom ngay gis ay kooreki korek ila axiri loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax waaye ak moom nga xam ne mi ngi teew ci fan yu néew mi ngi ñuy fàttali taxawaay bu mag bu yeneen ci béykat sahaabam taxawoon suñu borom yàlla farataal ci ñoom ñu war a bàyyi seeni dëkk bàyyi seen i tool bàyyi seen alal bàyyi seen njaboot ngir rawale seen diini diina jooju nga xam ne moo gën a màgg lum mën a doon bal moo gën a màgg sax seen i bakkan daañu dem Madina bañ demee Madina fekk fa waa ansaar ñooñee dalal leen séddoo ñoom seen alal ya aar leen nañ doon aara seen njaboot mu tax gaa yi loolu ñun tiyaaba jooju leen yàlla jagleel bakk boobu yàlla subhanahu wa taala bakk leen ko ci aaya yu bëri ci alquran ndax ñun loolu mën nañ koo defe ci déedéet mënuñu ko def abadan ndax yonent bi alayhi salaam nee na la nga xam ne mooy gàddaay jóge makka jëm madina amatul waaye li ci des day mooy yéene bu sell ak jihaad fi sabilillah te mooy góorgóorlu jéem a def lu lay jural ngërëmal yàlla kon ñun lan la yàlla sàkku ci ñun ban gàddaay la yàlla sàkku ci ñun mooy yàlla sàkku na ci ñun bépp place boo xam ne yaa ngi fa nekk ci mënoo faa jaamu yàlla jaamu gu sell nga la waay jógeel foofu bu dee kër bako bu dee quartier bako bu dee réew bako waaye mboolem àndandoo yi nga xam ne da ngay ànd ak ñoom ci mooy yàlla nga la waay baleen mboolemi bàkkaar ya nga mii noonu nga la waay fexe ko dëddu gàddaay koo te yàlla tax lii day mbokk jurit yàlla tegul benn bakkan lu dul la man heure bu ñu gàddaayee la neexul yàlla jëm ci ngërëmam ëllëg ci sibir danañu boole sahabatul kiram ña gàddaayoon seen lépp daal di jëm ci seen borom jalla wa ala loolu kon nañu góorgóorlu ci loolu mbokk am ata ngi di jeex jeex ci fan ñuy néew des ci suñu borom yàlla lu mu mën a doon dafa ittewoo ak mu jëm kon ñetti fan yi des gàlla waay nañ ko def fan yi xoolal suñu bopp tuubaat suñu bakkaar toroxluwaat jëm ci yàlla kon day maa ngi lay seedeel ne juru fukki weer ak benn ya paase yépp bu doon te ne daa ñaawit maa daama rafetal nga mujjug at mi sunu borom yàlla ci mbaaxam dana la jàppale yow kat ku rafetoon at bi yépp ba nga su ko defee ñi nga ñaan yàlla yàlla yàlla subhanahu wa taala jàppale ñu ci loolu at mi nga xam ne muy nar a jeex ak at mi nar a teru yàlla yàlla teral ko ci di ci ñun suñu réew muy atum jàmm ak atum yërmaane waaye defal ko ci mboole mi réew ñu jullit yal na yàlla teggi fitna ya dal ca Afghanistan ya dal ca Pakistan dal ca Yemen ak Iraq ak Libye ak Syrie ak mboole mi dëkk jullit yi nga xamee ne tey jii noonu yàlla yi taal nañ fa ay fitna ba suñu mbokk jullit ya jëfandee guddi jëfandee bëccëg yal na yàlla subhanahu wa taala teggil leen loolu yal na yàlla remplace leen place loolu jàmm ak afiya yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu la nga xam ne muy mujj rafet yal na yàlla barkeelal ñu la nga xam ne mooy suñu njaboot yërëmal ñu mbooleem suñu way dawlu yi dem la gën la ñuy defal ay jaamam ci àdduna yal na yàlla defal ñu ko la gën a màgg la ñuy fegal ay jaamam ci musiba ci àdduna yal na yàlla fegal ñu ko yal na yàlla may ñu àjjana ak lu ñuy jegal àjjana ci wax ak i jëf yal na yàlla soril ñu sawara ak lu ñuy soril sawara ci wax ak i jëf yal na yàlla saxal ñu siraatal mustaqim ba baa ñu dajeeg moom buñ dajeeg moom yal nañu jéggal ca yërëm ñu te defal ñu jannatul firdawsi muy suñu wàccuwaay yi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين